jey ña mbokki la ñu la jëy seen borom jëy production mbokk ndaanaan bi nga xamante ne bu wootee amateur kontaan bu wootee képp koo xamante yaa ngi bëggee làmb kontaan xam ngeen lu ko waral sama ndi yaay Abdou Lakhat Ndiaye yi muy def ci biir la kenn mës gis tey Abdou bis la boo xamante làmb dootu ko fàtte ndax dañoo jël xale yi nga xamante làmb da yaakaar xam ngeen ñaabu ndaw mooy yaakaar yi géejawaay mbokk xam ngeen sénégalaise ciy loolu ciy jéen ma papa Jacques Diène suma xel dem na ci yow ak ñi nga xamante ni jiit nañu mbokk manager yi ñoom la jée seen di sargal ci bis bi nga xamante ne nii ci la xale ñi gën a xarañ ci làmb di daje ginnaaw Bour ak ñaabu ndaw mbokk yi xam ngeen dina ci daje mbokk ak armée bu ngéwél appliqué moo fay daje ak fils de doomu looro dina ci laale mbokk moom ak Boy Paul Petit moom ak Douglas numéro 2 lay doon Zita combat bu doy waar boo xamante ni képp ci benn bis nga ni ko sargalee manager yi mbokk yi xam ngeen bi lu ci gën a neex dañ cee sargal suñu nawle dañ cee sargal koo xamante ne dañ koo yàgg a sargal ci làmb sama xarit Ismaïla daa fort ba tax na ki nga xamante ne nii moom mooy Fadal bu Dakar Buzz Fadal ndaanaan bi fu mu dox ñu xam ne kii mooy ndaanaan bi nekk ci Dakar Buzz mbokk yi moom la ñuy sargal Fadal boo yegg see xam ne askanu ngéwél ñoo la bëgg ci sama waa ji le 22 du yomb jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew mbokk yi mbégte la nag tey ñu dalal kilifa Serigne Mor yaakaar naa ne nag bi ñu fi géejee mooy bi ñuy waaj màggal gi si sa doom bi nga doon tudd macha allah mondu làmb yépp teew fi keroog ñu ñëpp fi lañ yendu fi lañ waaj a jóge fi dem màggalu Touba parce que ni ma koy waxee à chaque fois ñu ñooy daje ci xew jàmm yi moo xamuy muy ngénte yi wala dëj yi wala màggal yi parce que ñun ñëpp ñoo bokk làmb ji tey nag ñu dalal la fas yéene waxtaan ak yow ci làmb fas yéene waxtaan ak yow si lu yaatoo yaatu dimanche passé gis nañ nga ànd ak sa champion c'est la première fois nga ànd ak Ada Fass loolu aussi tamit di nga nu wax lan moo ko waral parce que dañ doon gis ngay ànd ak yeneen mbër yu bëree bëri di leen indi si làmb mais mosoo ànd ak Ada Fass relation bi bëgg nañoo xam fan la commencé ñuy nuy waa réew mi yëpp ak waa bitim réew mbokk yi di leen wax na leen ngeen abonné ci Gaston Production nag ñu waaja saison de lutte 2023 2024 kalaaf bi poule A ak poule yaakaar naa ne balaa suba incha allah wala après demain am nañ yaqin ne kii complété poulu ñoom Doudou Sané bi di ngeen ko xam ngeen abonné rek bu ko defee sëñ Mor dañ lay nuyu rek bàyyi la nga nuyoo mbokk internet dañu jublu ci liggéey bi waaw onze bi amin yàlla bi seen bi sant suñu ñaari si barkeem du nuyu waa Sénégal ñëpp di bal ak ñëpp di bal ak ñëpp du nuyu waa Parcelles Assainies 1 ba 26 ndax man foofu laa juddoo ah. lu ma am parce que laa ko amee lu ma mel parce que laa ko melee kon maa bu baax di sant fi ma dëkk tamit ñoom di leen nuyu bu baax di leen jox seen wàccu waay ñoom ñëpp di nuyu waa Gaston production di nuyu sa cameraman di nuyu waa Sénégal ñëpp ñëpp mm-hmm. macha allah am na solo bi ñëwee sa xew amuñu woon temps waxtaan parce que boobu sama cameraman dafa demoon màggali comme ni nga koy defee rek ñun bu buñ xewalee noonu ngay ñëwee yow aussi tamit boo xewalee noonu la ñëwee tey nag ñu am mbégte dalal la fas yéenee détaillé ci lu bëree bëree bëree bëri sëñ Mor dimanche passé dañ la gis nga ànd ak mbër boo musul àndal. seen relation fan la commencé ba ngeen sekk affaire de ñaan. waaw Ada Fass sama relation moom mi ngi jóge si Abakara. Baye Fall bi. moom moo jël sama photo envoyé ko Abakara. Abakara jox sama numéro mu woo ma. am si man cofeel ak yéen ak yéeg ne daa bëgg ma ñaan ko si combat bi. mu ñëw ñu toog waxtaan. tënk say kàddu. jubóo say kàddu. ma ñaanal ko. lii moo indi sama diggante ak Ada Fass. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ada ban mbër la. waaw mbër bu yaru la. maanaam ni mu mel si biir laam. ak boo ko fekkee Ada personne ni ko yaru la xale bu yaru la. waaw xale bu ma jox ci réew dëgg yàlla. ma fonk am na solo sëñ Mor dañuy gis muy ànd ak ay mbër yu bari gis nañ sa combat Amed Dem ak Jam Thierry àndan nga ak moom gis nañ Youssou Ndour Mor Kankang gis nañ aussi tamit Alioune Seye junior ak ki nga xam ne mooy Siteu bu Ngor gis nañ ñaabu ndaw moom gis nañ combat yi nga xamante bi ni ràññee naa ko quatre wala trois derniers combats yëpp ngay ànd ak ñoom sa relation ak mbëri nan la demee. waaw sama relation ak mbëri nag du leen lu mbëri ñoom cofe si man mu du anta man métier bu ma nekk wutuma si xarit wutuma si mbokk du ma si doomu ndey wutuma si bëgg lu ñax doomu aadama àdduna na ko kaay ma ñaan du ma ko mës a def mbër boo gis ma ànd ak moom esat xamal ne moom moo ma seet si wóolu ma am sama cofeel ñu waxtaan bu jubóo mu fay ma xaalis ma dem liggéeyal ko mbër bu ma fayal du ma la liggéeyal parce tamit ñu dañoo yor njaboot di liggéey ñoom ñu yor njaboot di liggéey ñaata promoteur ñoo tëgg mbër yi bëri na chaque jour mbër saa yu bëre ak promoteur bees kon lan moo tax ñu bëgg yem si benn mbër kase te yor njaboot mm. yor ay famille am ñu yaakaar suñu dimbali gox bi mm. ma def loolu en tout cas wor ba may faatu du ma wor ndax yàgg nañ maa proposé ay combat am ñu toog ba vingt combat nit woo ma barke salaatul faatee combat Youssou Ndour Mor Kang Kang bii nit woo na ma proposé ma xaalis bari mais man ko def du ma wor ku may liggéeyal yow laa mu leer si kanam awma benn mbër boo xam ne moom laay topp fixe man mbër bu ma bëgg sama xol benn muy Modou Lo rek laa bëgg sama xol Modou Lo rek laa bëgg sama xol. Mm-hmm. ndax moom moo tax ma xam lu bëree bëri si laam. Mm-hmm. Tyson rek laa doon topp. Mm-hmm. kuy wàllu yàlla nag sa dëkk moo tëggul. Ah. ba ne ba Modou Lo moo ñu ñu kenn indul. ñu roi des arènes. teg ko tamit fu ñu tegul kenn. waaw loolu moom Papis xam na man xam naa yàlla xam na. Papis bu xarañ. xam na man xam naa yàlla xam na waaw. macha allah am na solo sëñ Mor ba tey dañuy taxaw ci làmb làmb bu jeexee surtout combat Ada Fass bi jeex dafa jeex ñu dégg ay détails. benn déclaration boo def ci combat Mor Kang ay Youssou Ndour ak ak euh, combat ñaabu ndaw di moins ak buur Sine def ko ci Potilo ak ki nga xamante bi ni mooy Jackson loolu nag gars yi di ko dagg di ko dugalaat lan moo waral lan lool ak armée bu ngéwél Tmax lan moo waral réaction à la wala lan moo waral lool. waaw xam nga Sénégal wax fu yombul. ku ne am nga koo wóolu. Hmm. Potilo am na ñu wóolu. am na ko ñaan. Hmm. donte que parce laa juddoo fulaa màggee fulaa yoroo hmm. aw maa moom benn relation hmm. bi tax ma war koo ñaanal hmm. ñu ñëw sama xew gis nañ Jackson moom laa jox xaalis si loxo boppam moo dem dara jëni nag moo ñëw rend ko fees ko fanaan fi xar mi même chose est-ce que dinaa ko teg rek dara mu jël léppam jox ma boo sama doom la kon yoon la bisam ma tax sirip mais su ma waxee ni pët la kii da daan Jackson tax lu mu daan ko mais parce que yàllaa fi ne. ñun duñu yàlla. duñu malaaka duñu da ngay ñaan tey yàlla may la suba nga ñaan yàlla du la ba tey ñu am ndam billaahi maa ngi suur suba ma yóbboo ni du ma ko daan ko àdduna di seen bët te boobu damay taal sa boto ñu bis du ma sax déranger parce que man nekkatuma gan si sport benn bis mënutuma bu mag bu ne ku fekkee mënuloo balage rek doy na événement boobu kasa doy na si événement kon yéen événement yëpp ay dis la rek ñaa bu ndaw sama doom la. Ah. àdduna bi xam ne maag moom. Mm-hmm. su ma nee ñaabu ndaw dina daan bursin mais ku ne ko fi nga ko déggee mu jeex ku ko fi nga ko war déggee mu jeex. Mm-hmm. erreur nag du ñor doomu aadama. Ah. su fekkee am na ñoo xam ne loolu da leen a déranger. Mm-hmm. comme ñu dëkk parcelle. jóge Pët Lo. maa ngi leen jégalu bu baax si loolu. dañuy wax ñun ay doomu aadama lan ay jàmm xeebu lan dañuy juum matuñu. kenn rek mooy ki kamal mu suñu borom. moom rek moo kamal benn doomu aadama kat. Kamal. maa ngi leen jéglu ñoom bu baax a baax a baax. waa famille Bour bu fekkee loolu Bawol. am na ku mu si dérangé. maa ngi leen jéglu bu baax. en tout dinaa ngemb. Mm. ñaa ndaw indi ko dinaa ngemb. arma bu ngéwél indi ko dinaa ngemb. Jackson indi ko lu yàlla def nga xam loolu la. Mm. Mm-hmm. ok mais réaction boobu lan nga ci jàngate làmb jeex mbër bi nga indi daan journaliste yi daw song la foofu noonu ban ban ban aal mooy ñëw si waaw xam nga nit ku nekk ak nu muy dégager émission te tàng tàng dafa xaw doy waar am na yoo xam ne journaliste ñoom ñoo soo ah. na nu muy am na nu koy poser question rek mm-hmm. mën naa wax lu ëpp mm-hmm. bu demee këram la soo ko tànn kon wax naa lu ëpp fekk béy wéy na mbuus mm-hmm. ndax moom kenn mënu koo defaraat mais heureusement boo xamante lu ñaaw diw dee daan rek laay wax sport la rek teguma ko fen nag lu si sport lu am cofeel mi ngi mel tey Modou Ama Baldé di bëre ma ne Modou yàlla na daan Ama Baldé tegu ma ko fenn lu ñaan yàlla waaw ñaan nag doomu adama bu ne am nga sañ-sañ ñaan ak doan a am nga droit ki ñëw ko mu am ndam mais tegu ma ko parce que pët loo dama ko bëgg ah, nga bëgg waaw pët loo pët loo dama ko bëgg parce que nag kenn du bëgg ginaar bañ ay nenam bañ ay nenam ah. te pët loo mooy Modou su ma ko waxoon la may gis Modou Lô mm-hmm. man dama ne xaju Modou sax bu génne dama koy bëgg loolu la ma yàlla defal parce que man noonu laa mel si Modou Lo xaw ma si moom sago mm-hmm. Modou Lo ba ko Balla Gaye daanee barke salaatu fi damaa toog weer koo feebar jël bu njëkk bi laa wax barke salaatu fi fàtte mënu man mm-hmm. na ma man bu baax man xam naa ko bu baax man waxal parce su ma Papis tënk na lépp mm-hmm. Papis mu ne jël seede parce que déggante waaw loolu rek doy na. Mm. am na solo euh, combat Ada dafa jeex mm. ak Zos coow li bëri. Mm. seeti naa benn promoteur démb muy Makan Mbeng mu ne pare na pour Moussa pare na pour guy gi ak Ada Fass mu organiser loolu dem ba ci sax ne Siteu ak Ada Fass laa bëgg loolu lan nga ciy waxee. waaw yooyu yëpp ay combat neex la. Hmm. Siteu Ada Fass guy gi musaandooy hmm. waaw ñun moom combat bi ñu gën mooy Gouye Gui. Gouye Gui waaw. Siteu lu tax Gouye Gui gënal leen. waaw Gouye Gui ndaanaan la. Hmm. gaynde la bu ñëwee si stade ñëpp xam ne ñëw si stade. te man damay bëgg mbër. bi may ngémb di ko ñaanal muy bëre gaynde parce que nga ngémb mbër ñëw mu daan mbër du saf dara parce que da nga xam ne kii moo ko mën hmm. mais fi nga amee fierté dëgg mooy nga ngëmb ngémb mbër ñëw àdduna bi yëpp tey mu dee hmm. nga ñëw exploité bis bi hmm. moo tax ma xam ne guy gi bu ñu sante moom day neex trop mais am nga ne combat boobu am nga yàqin na dina taxaw parce que yi sori nañ ci ñi ko bëgg bëri de dina taxaw léegi am nañu yaakaar bu baax a baax a wax si kàttanu yàlla. ah alhamdulilah bu taxawee tey neex de. waaw am nañu yaakaar balaa ñu tës leen bu neex bu waaw balaa ne combat bi taxaw na àll nag. Hmm. moom laa mujjee xam si mbër yi. cër yàlla suñu borom moo koy joxe. Hmm. mu daan ne wax dëgg. Hmm. làmb du affaire caaxaan. waaw caaxaan a foor si ngemb. ngemb. la ko jox avant combat bi weer. may fanaan mu di si def lu ma neex. bis combat bi ma yóbbu ko ngémbam combat bi jeex àdduna bi yëpp taxaw këram. mu ma jëlee ngémb nga yóbbu sa kër. bu ko foofu la mën a yem nag. mu jël lépp bàyyi ko man. Mm-hmm. may def di jindi. Mm-hmm. lan moo tax ma ko yemale ak dara bu mu ko def man nag du ma wor. Mm-hmm. ñaaw bu ne bëgg nit ñi xam ne sama doom la. sama doom la. te làmb mën na leen a boole. ndax làmb mën na leen te ñaa xale la. nekk si yoon di dem avenir la te fu ñu dégg Modou Lo Balla Gaye Ama Baldé ñàpp na dañ ko fay dégg parce que mi ngi si yoon boobu yàlla na ko la lafal cat mais nit ñi dañuy bàyyi di jaxase ay diggante yooyu rafetul man ba ba may dee du ma tiit ba ba may dee du ma fenn te dama am fort mentalement mm-hmm. déstabiliser ma yomb mm-hmm. parce que sport nag du si gan xëy léegi dama ñu di gis rek mm-hmm. ñett yi yooyu mais sport laa am na solo mais sa mbër bi. dañuy dégg ay détails des fois sax benn Modou Anta aalu toog wax ci aada Fass aada bu dee kii na moom xam na parce que man avant muy dugg arène laa ko xam avant muy bëre mbapat laa ko xam xam naa ko bu yàgg des fois détails yi ngay dégg du entraîner day dem soirée day dem fii day dem faa te comme yow yaa ngi ciy doog a ñëw ana lan nga ciy wax parce que gars yu bëri ba ci ay moroomu mbërëm ay promoteur bari nañu ko yéene ka bu bàyyee lii bàyyi lii bàyyi lii mun na dégg mën na nekk champion. Mhm. ku juddu quatre-vingt-quinze xaye la te am na ñoo xam seen six muñ ñu ko dékku mais foo ñoom entourage bu baax ak staff bu baax parce nit ki nag boo ànd ak moom doo ànd ak moom si ay raay raayal danga koy wax dëgg bu lay jàpp bu jàpp la si dëgg bu lay bàyyi mbali si dëgg man noonu lay ànd ak doomu adama du ma jeey doomu adama mukk te li may wax Abakara xam na si dara ndax lépp lu may wax daay ma seede bugguma di wax maa ngi nit ëllëg moo tax man du ma ànd ak aada si affaire ñàkk fayda li ma ko waxoon gëm boppam am fulla am fayda moytu xale jigéen ñi parce que gëmuñ dara surtout ku siiw rek lañ bëgg surtout jigéen ñi ku taar rek ñu la taar ren soirée yi muy dem amul benn sens mm-hmm. foo xam nga kañ la neex mm-hmm. soo demee ba yor mm-hmm. am ay cent millions cent cent deux cent millions yu nekk si kanamam fii ak deux ans trois ans léegi rek moo ko mën a may mu lelu jàpp gox bu mu dëkk muy waa Fass ndax desalatuñ ko dara nag nga nekk mbër bëre daanu ñëw indi mbooloo bu raw bi nga indi woon wóolte nag foofu la mën a yem moom nag moo war a wàccu ñoom ndax waa fas wàccu ñoom moom bu ñëw li mu war am silaam dina mën nañoo xaar déwén heure bi Ada Fass am ci Ramsi ginnaaw ndimbalu yàlla nag dana du ànd ak coono du ànd ak maa tax mais sabab am na ci mën nañu xaar heure bi ñu ne kër gii Ada Fass ko moom oto bi Ada Fass moo ko moom incha allah rabi si kat yàlla nga xam ñu ni ànd ak moom bëgguñu ànd ak moom ànd bëgg ànd ak moom si dëgg heure ñëpp taxaw mbër taxaw ne maamoom kër gi arrêté gi fu mbër taxaw ne maamoom ñu ngi si liggéey ñu ngi ko si encadré ñu ngi si encadré pour yàlla defe ko jàmm ñu soxlawuñ dara ci moom li may wax Abacar xam na parce que xale la am na ñoo xam ne bu ñu ànd ak yow dañ lay jaay loo neex rek lañ lay wax te lox dëgg mukk yaa fi ne yaa mën yaa bu doole liggéey ñu la liggéey nga ma ne mbër bu liggéey du mën a ñaanal mbër bu entraîné wul ñëw rek bëgg jël lépp teg ko si galaaj barke saa fa du ma la faale man su ma siy taqrib day fekk ma gis état de forme mbër bi jar ko parce que tamit ñaan day am lu mu àndal ñu jël adduna bi yëpp ñaanal la ngem la dem lay boo dee mur daan la

mais ñun guy gi moo ñu gënal parce que daan guy gi am na fu mu mën a yóbbu mm-hmm. jugee mm-hmm. su dee bëree guy gi daan ko mm-hmm. làmb mu ubbeeku na ba faw mais est ce que liy daan euh, guy ngi ci aada face ak aada mii ñu mujjee gis contre Zos waaw aada nag ñëpp ñuy wax forme yi forme yi bu liggéeyul woon man damay taxaw ne aada liggéeyul mais yàlla seet nañu man heure yi ma doon déggee aada mënu maa ngi dem entraînement billaahi wallaahi wa xam naa liggéey na si combat bi ndax doon na dem bay def quatre séances par jour ndax man loolu dama doon diggante moom. xëy na nag am na nu mu entraîné moo waral mu ngeer. ndax mu loolu muy bëri Balla Gaye ñëpp gis nañ ko. Ah. dafa entraîné ba dem ba dafa jeex tàkk. Ah, ah. ba mu ñëwee ko daan àdduna yàlla sutal na ko. mu hmm. ba jeex mais ñëw yàlla may ko ndam. Hmm. mais contre guy bu soobee yàlla dinañ gisal bi mu yor nii parce que bi mu yor tamit wax dëgg daal. Hmm. am na solo tey bala bala maa tàggoo ak yow boo amoon looy lancé par rapport ak sëriñ gi nga nekk di ñaan ci làmb ji am na ay risque amul ay risque ban message nga ci lancé moo xam ci amateurs yi ci supporters yi sa moroomu sëriñ yi ak mbëri aussi lan lay doon. waaw li ma si lancé rek moo ñu xam ni Sénégal ñëpp ñoo ko moom. ñu moytu waxante lu ñaaw. defante lu ñaaw te xam ne sëriñ du yàlla. du yeneen du malaax du xubu samaan. sëriñ bi wax day wax ak yéeneem. ak bëgg-bëggam yàlla rek mooy wax dernière ma fëgg sama dënn mukk ne man la. parce que xam naa li nekk si man du man. yàlla suñu borom moo ko def si man. saa yu ko soobee mu roj ko si te du si man dara. ak lu làmb nañ bëggante parce que ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay promoteurs yi mu ñoo dem sans mbër yi mbër yi mu ñoo dem sans journaliste yi mbër yi mu ñoo dem sans sëriñ sëriñ si mu ñoo dem sans mbër yi amateurs yi même chose supporters même chose kon famille la nañ ko rafetal mais man tey su mu ëllëg ñu ci si xew bànneex wala xew naqar ñuy gisante duñ mën a mm-hmm. mm-hmm. la mm-hmm. te mu ñoom lu ko gën da ngay xool te problème boo mënti am soo duggee làmb toog tribune seen nga fàtte ko hmm. loolu làmb kese mën na ko mën a may hmm. kon nañ jàppante man ba may faatu du ma wax doomu adama ñaaw hmm. lépp bi lay baal naa la te xam ne àdduna moo du ko corné oto bi si kanam la ñuy man nag moom su ma tooñee bilaay du ma koy tëb du ma bàyyi ma xam du ma moroomam <laughs> barke Seex Tijaan la xawee tooñee dama koy tëb du ma bàyyi ma <laughs> mu ci nar bilaay walaay àdduna nag yàllaa ko moom maa ngi nuyu sama benn waay ju baax. du nekk France. Eh. Maabdu. nit ku baax nit ku yàlla baaxal. ma ko sant bu baax di ko gërëm. Mm. di sant Cheikh Tidiane bu baax a baax a baax. Mm. su ma waay la su ma lépp la di sant sëñ Jibi Thiaw laay. Mm. doomu baab laay Thiaw la xalifa général de moom daf maa bëgg boppam lool. teel a tax di sant waa man ko gépp nag. du parce waa Parcelles Unité 7. foofu laa juddoo. lu ma am ñoom la. quartier déggoo ñoo ma defar doo sant yàlla te xubbul watana mi ne iman bëgg sa réew daa bokk si jaamu yàlla waaw kon nag man amul lu parcelle man su ma soon xaju parcelle buy bëri sama ànd ak ñoom billaay walaay ndax man saa su parcelle di bëri damay dem esa toog di supporter fàttali man li ma doon ndax tey cër bu mu mënti am parcelle la ko waral mais nag xëy ma kenn lu bon zos moom moo ma xamal làmb moom laa njëkk supporter 2004 boobu mu loo bëreegul jos bu ñuy bëri Bathie Seras ba ko Bathie dóorum daan maa ngi esat esat laa jóge ba parcelle ak jooy moo tax ko bu ma duggee jéebi jos romb sama xol xam naa tooy parce que xam naa daal lii mooy àdduna mm-hmm. waaw sant naa ñëpp nag gërëm ñëpp di dégg bu baax a baax a baax macha allah mbokk yi mi ngi noonu sëñ Mor lan dalaloon tey dégg ngeen kàddu yu rafet yi nga xamante bi nii moom la yëkkati di leen wax chaque jour rek làmb comme ni ma koy waxee ñun ñëpp ay famille lañ tey benn combat bu mu ñëw ba coow leeg tension bi tax tey nga wax nit loo ko wërta wax wala nga def nit loo ko wërta def parce que làmb ji day jeex comme ni ma koy waxee chaque jour ñun ñoo des ci xew yeeg noo xam ñu naqar yeeg yu bànneex yépp dañ cay teew ñun di ca bége te nañ fexe ba buñ dajee saa su nekk na rafet mais mbokk yi am nañ yàqin comme ni leen koy waxee duñ tudd benn promoteur parce que promoteur yi nag bari na am nañ yàqin ne combat Ada ak guy gi mun na taxaw tey wala suba parce que bari na promoteur yoo xamante bi nii nekk nañ ci te bëgg nañ ko waaye nag tàkke boo gis am na jàppal ma diw ñun tamit bëgg nañoo tëgg Ada Fass waaye keneen ku ci sa wërsëg aussi tamit boo ko taxawalee rek ñu xam ne noonu la bari na gaa yu ko songandoo nag Ada moom fi mu ne nii macha allah noonu la ko defee tànn sa bu neex la daal mbokk di leen jox di daje xalil ba beneen yoon incha allah ci Gaston Production. mbokki Sénégal ndaanaan bi saa wootee ngeen xam ne ñëwati na la ñu ne Dieye Sène borom Dieye production mbokk ndaanaan bi nga xamante ne bu wootee amateur kontaan bu wootee képp koo xamante yaa ngi bëggee làmb kontaan xam ngeen lu ko waral sama ndi yaay Abdoulaye Khat Ndiaye combinaison yi muy def ci biir la kenn mës gis ci Abdoulaye Khat bis la boo xamante làmb dootu ko fàtte ndax dañoo jël xale yi nga xamante làmb da a yaakaar xam n ñaamu ndaw mooy yaakaar yi géejawaay lutte sénégalaise ciy loolu ciy jéen moo papa Jacques Diène suma xel dem na ci yow ak ñi nga xamante ni jiit nañu mbokk manager yi ñoom la jéen seen di ci bis bi nga xamante ne ci la xale ñi gën a xale ci làmb di daje ginnaaw Bour Sine ak ñaabu ndaw mbokk yi xam ngeen dina ci daje mbokk ak armée bu ngéwél appliqué moo fay daje ak fils de doomu looro dina ci laale mbokk moom ak Boy Paul Petit moom ak Douglas numéro 2 lay doon Zita général combat bu doy waar boo xamante ni képp kuy amateur yaa ngi koy xaar trois grands combats ci benn bis nga ni koo ko sargalee manager yi mbokk yi xam ngeen bis bi lu ci gën a neex dañ cee sargal suñu nawle dañ cee sargal koo xamante ne dañ koo yàgg a sargal ci làmb sama xarit Ismaïla Mbaye naan nawle daa fort ba tax na ki nga xamante ni nii moom mooy Fadal bu Dakar Buzz Fadal ndaanaan bi fu mu dox ñu xam ne kii mooy ndaanaan bi nekk ci Dakar Buzz mbokk yi moom la ñuy sargal Fadal boo yegsee xam ne askanu ngéwél ñoo la bëgg ci sama waa ji le 22 du yomb